commencé dama bëgg dès le début ñuy wax ni coronavirus du virus boo xam ne bu bees la virus boo xam ne yàgg na am ci dëkk bi ci dëkk yépp waaye bi am at bi moo gën a soxor yi doon am bu njëkk ba mooy comme su ñuy wax grippe yàgg na am grippe moom ku nekk mën na grippe virus la at bu nekk nag virus bi day changé virus bi ngay gis tey soo demee déwén beneen façon virus ngay ñëw léegi nag bés mën nga tombe ci virus boo xam ne moo gën a soxor yeneen yi la loolu nag moo am reen donc première mesure bu ñuy wax nit ñi mooy dee leen raxas seen loxo heure bu nekk taxasal sa loxo ndox saabu soxlawul jël ay eau de javel ay ay kii ak yooyu ndox saabu nga raxas sa loxo ba mu set mooy première mesure de prévention bi mooy kii deuxième mesure bi mooy nit ki soo feebaree maanaam ngay sëqat sa dënn di métti sa yaram di tàng sa bopp di métti xamal ni signes yooyu day alerte mais ça veut pas dire que am nga parce que yooyu il faut mu am yi nga koy booleel soo amee loolu ak voyager maanaam nga dem si dëkk yoo xam ne am na feebar boobu loolu mën nga xalaat ni mën na nekk loolu nga dem defi consultation waa ilaa nga nekk si kër boo xam ne am na ku am feebar boobu yow nga commencé am signe yooyu mën nga xalaat ni feebar bi am nga fa tamit te su boobaa lu ñuy njëkk a laaj mooy nit ki dem consultation hmm? ñetteel bi li ñuy wax mooy transmission interhumaine rapprochée maanaam nit ñi jegewoo donc mooy tax ñu naan mbooloo rassemblement yenn réunion yi période bii suñ ko mëne moytu ñu jëm ko moytu muy ga muy muy jàng yi muy ki xamna dina metti nak parce que dëkku diine lañu ñu nekk suñu bëggé téré yenn ni dina metti waaye nak il faut ñu xalaat fi parce que yenen dëkk yi feebar baangi law sin gis nañu nit ñi ñu fa gaañoo bari na France bari na Afrique mi ngi commencé Sénégal am na amna am na Afrique du Sud Maroc Tunisie yépp OMS maanaam mooy kuréel bi seq dëkk yépp di toppatoo luy faju wér-gu-yaram nee na nit ñi moytu yenn kii yoo xam ne maanaam yenn dajaloo yoo xam ne day am nit ñu bari ñu nekk ci même endroit parce que su boobaa su kenn feebaree rek su sëqatee di nga wàll sa morom sa morom wàll sa morom ñoom ñëpp ñu wàll leen